jërë ngeen jëf mën ngaa fecc ko mu tax nga sumi sa tubay bëgg a ci géew bi tamadula pibum loolee mooy bëgg a dal député bii di Cheikh Abdou Bara Dolly suuf su mu ne Macky Sall da koy sàcc ak fa mu jëmee wax ja libération nee nañu moo ko jural ñool ñool yi mu nekke bi ko enquêteurs laajee li mu wax li mu leen tontu moom Cheikh Abdou Bara Dolly libé nee ne waxuma suufus dara nekk nag ak ni nga ko déggee libération yi ne kaa ne ginnaaw bu ko waa DC jàppee Cheikh Abdou Bara Dolly day ah daal dinañ nekk ak ni nga ko lii la wax enquêteurs yi yéeni kaay bi di libération ne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ak nëbb gin ko nëbb jant bi lan moo nekk ci ginnaaw libération di ñu ko xibaar ay kàddu ya mu yëkkati kanamu yoon moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ginnaaw ban ko laajee ay kàddoom yi mu yëkkati jëme ko ci président de la république fan la ko teg mu ne waxuma ci suuf dara dafa fekk ne kay ay kàddu la yëkkati rek ku ne ak ni nga ko déggee maanaam daal dafa lal ab géejjam rek ku lalli rek